sa taxawaay. ndax sa taxawaay. li Serigne Touba ñaanoon. nee na sëriñ Serigne naanoon. ci Touba ci Touba. moom nga ko defal. nee na yow loolu nga defal Serigne bi. wajahalahu. wajahalahu. tahban tahban. maskana taallumi. maskana taallumi. wa mawdi al fikrati. wa tafahumi. yemoo ci loolu. nee na yemoo ci loolu. wal tusbitan. wal tusbitan. fiihi. fiihi. jamaatan. jamaatan. tuqimu salaat. tuqimu salaat. tuqimu salawaat. tuqimu salawaat. tëhban. tëhban. yaa hakim. dafa ñaan boromam. dafa ñaan boromam. sama dëkk bii. sama dëkk bii. di Touba. di Touba. na doon na doon dëkk. ñuy jànge alxuraan bu ñuy jànge alxuraan di ko fi mokkale di ko fi mokkale waaye bu ñu ko mokkalee ba pare waaye bu ñu ko mokkalee ba pare jàng xam-xam jàng xam-xam ko te sëriñ mat saxirloo te sëriñ mat saxirloo kokki kokki daf ñoo jàngal daf leen a jàngal alxuraani kese alxuraani kese dafa mel ni dafa mel ni ka masalil ximaari yaxmilu yaxmilu asfaara tey sëñ Maxtaar jenn saa waaji waxee loolu ba pare ah. nee na bi la sa maam Serigne Touba waxee loolu ba pare nga ubbi daara nga ubbi daara yemoo ci ba ca topp ba ca topp mooy jumaa mooy jumaa wala jàkka wala jàkka nga ñëw nga ñëw tabaxal ko tabaxal ko jumaa ndax almada al al almadaarisu ndax almadaarisu xablal masaajida bu école bu école amul bu école yi amul jumaa yi du mën a taxaw. jumaa yi du mën a taxaw. ndax ñi dem ci ñi dem ci jumaa yi. ndax ñi dem ci jumaa yi. ci école yi la ñuy génne. ci école yi la ñuy kon kuréel social jërëjëf. kon kuréel social jërëjëf. nee na jenn kon. ñu ngi lay sant. di la gërëm. di la gërëm. yow sunu xarit. yi nee na yow xaritam nga. di sunu soppeeku. di soppeeku. di nit ku yàlla baaxal. di nit ku yàlla baaxal. lee nga def ci Touba. nee na lee nga def ca Touba. kuy sa xarit. kuy sa xarit. wala muy sa soppe. wala muy sa soppe. wala mu bëgg la. wala mu bëgg la. da ciy puukarewu. da ciy puukarewu. da koy tiitaroo. da koy tiitaroo. da koy ndamoo. da koy ndamoo. ndax dafa jàpp ni. ndax dafa jàpp ni. boppam la ko defal boppam la ko defal. kon yàlla na la yàlla defal jàmm. coow li nag mën naa bari. nee na coow li nag mën naa bari. waaye man xam naa. waaye moom xam na. sa diggante. sa diggante. la ak président de la république. mai 2012. nee na mai 2012. bi mu gañee réew. bi mu gañee réew bi. bi muy dem Màkka di Umra. bi muy dem Màkka di Umra. avion ba. avion ba. maa ca dugg. nee na moom mii moo ca ak yow Serigne Matar Diagne. lam la wax. nee na lam la wax. dégg naa ko. nee na dégg na ko. xam na ko. yow wetam gi nga nekk. nee na yow wetam gi nga nekk. jaayoo ci sa ngor. jaayoo ci sa jaayoo ci sa ngor. jaayoo ci sa dignité. jaayoo ci sa dignité. kenn. nee na galgaloo ci kenn. te lépp day jeex. te lépp day boo ko doon def. boo ko doon def. bu ma nee na moom bu teewee fii. am naa fu lay maye pat am na am nay fu lay maye pat bi. wax ak yow li mu séq ak yow. wax ak yow li mu séq ak yow. te yooyu duñ dugg kon jërëjëf jël nee na ñu jox Serigne Makhtar jenn pour social mu sànni ci kat nee na deux minutes rek masana ngeen may ko ko Serigne Makhtar jenn pour social sànni ci ay kat bu paree di jiital ci nuyoo bi Serigne bi di la nuyu bu baax di sant yàlla di jégalu bu baax am amuñu fi kàddu te yow sa kàddu mooy sunu kàddu koy faral di waxee rek laa taxaw lu seeyal bay xëy gis foofu na lépp doy na sëkk kale yi na sëñ bi daan naa kale yi xanaa comme defoon nañ ko ban koy taxawal ni <laughs> ngi dund ba léegi te bu ne gis ni ñu gën a yokk ñu barkeeloo loolu ndax biñ koy taxawal ci sa ci njëkk yi hmm. bokk naa ci ñi fi yëkkati woon kàddu comme ñu ngi koy def ba léegi 2004 ba léegi nag. yàlla dina may wér ak yokk kon ñu dugal ko foofu ndax waaye sa moom doy na sëkk kàddu te ñu ngi suivre lépp ndax actualité la am solo boo xam ne bu fi ñëwul it jotee rek man yitteel na ma ba waxtu bu ne bu jotee boobu lu may def dinaa ko ci boole daanaka du ma fi tee waaye li may li may li ma li ma ci raw du bari gis naa ci nag lu am solo ren loo xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi la ciy ndokkeel ndax loolu moom mel na ni te mooy téere yi ma gis sax nga mool ko di ci fas yéene la xam nga ni wax moom day day day day day dem ba day raaf yokk bari waaye bind dafay des nag lool moom boo ko dugalee ci bis bi dara gënu loolu taxawaay bu rëy la boo xam ne gis naa ko ci liggéey bi jàll di nuyu ñëpp di nuyu ñu ma fekk ñëpp di suñu wëlal ndax dañoo bokk ñu dañoo dañoo bokk ñu ñu jaxasoo am na ñuy nuyu ñëpp bu ma jëlee nuyoo bi teg ko ci loxo Serigne Abdoul Moussa ak Serigne Abdoul Xaalal mu tegal ñu ko ci mbokk yi fi nekk yëpp soppe yi wëllëre su ma jëlee ñi nga xam ni ma jëlee nuyoo teg ko ci sëñ maam Cheikh Anta ak sëñ Madoum Lamine ñoom si ñax si ngeen tegal ma ko ci loxo yëpp ak mbokk yi nga fekk yëpp fekk yëpp di nuyu Baye Ndiaye ñu ko waxee ak ndax ñu def iraanga ju am solo ndax loolu moom lu am solo loo xam ni falaa tu'addu man ra'aytum faaw ilaha illallah nte wala loo wax de su fekkoon te ni gën a gën liñ naan sëriñ bi njaboote ak boole waxul sax ki tariixaat li ñu bokk ci deret ak li ñu bokk ci jëflante bu baax waaye kuy kuy wax rek laa ilaaha illallah lu ko def noonu mhm. man ñoom ñi fu ñu bokk waaye mel na ne fa ñu bokk lañ fay jëf tiraanga jooju sëñ Bas ñu ngi lay seedeel ni man yët jël nañ ma màggal Tuubaa lu mat ñetti ñetti nag ci ñetti ñetti at te toogul kon yàllaa tax ñuy def xam nga nit ki nga xam ne yaa ngi koy jëfal sax te toogul xam ne dañ maa seen rek wala ñu gis ma waaye ñu ngi koy def ba ren ñu ngi koy def te wallaahi jataay boobu sax ak Abdoulaye su bëriwul xam naa bi seen waajur na demee kon loolu jëf ju baax la waaye di ko di loolu lépp nag di maa ngi ciy seen sëriñ Cheikh Samb di ko di ko jaarale ci kon maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñu ma fekk sama doomi nijaay di jaarale sama doomi nijaay comme yooyu nga tegal ma nuyoo ba ci ñëpp suñu Abdoul Khoudous xam ne moom ñoo ko bokk na code boo ko doon wax ci buntu bi benn code bi kon baax kon baax na. jox <laughs> ah, taw bi la Mbacke. Mhm. Ah, yow moom li ñuy li ñuy wax ci yow loolu. li wér ndax. ndeysaan bëgg diw mu ëpp tay. Mhm. te ñu loolu jàpp ci yow ah, diw diw diw diw. damay fàttaliku mhm. waxi tey dafa yàgg. ñu daje Italie Brescia fanaan ci Potal. wante fi mu ne Cheikh Moutala. ndeysaan. nga génn romb la nga woo sëriñ Cheikh Baara Matiley yal na ko yàlla doon ñu leer te yërëm bu baax nga nuyoo dem ak ne ko kii sama xarit waaye day fanaan ci kurus te loolu yàgg la yooyu nag jógoo ci ba léegi loolu loolu la lañ la jàpp. ndeysaan suñu bunt ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine waaye yoo xam nga ni jaxasoo ñëw nga ba sunu kër lu ne lu wax ni nga koy waxee lu ci wax waaye jëf jëf jiñ gañ gën a rëy mooy bis bi nga rombee sunu waajur ci ëtt bi yëkkat sa am jox mu jigéen loolu dafa rëy ci ñun lool saa buñ ko dañ dañ la koy xoole loolu jëf yu rëy la ndax amuñu ko dul moom waaw ko teral rek teral na te loolu yëg nañ ko ci yow buñ ko bàyyi xel kon ñu ngi lay ndokkeel ci bis bi waaw bis bi moom ni ma ni ma ko waxee ak ah, mu ne day gën a yokk jërul nag jërul yéem yokk jërul yéem yow da ngay leb de koy leb rek dañ lay fay. xam nga da ngay leb man man damay toog ba yàgg sax dama naan est-ce que yow yoroo yeneen nga wax da ñëpp ñëwee. jël loola mel loola mel jël man man ni ngay maa war am bis xañ na man ñàkk yi tamit nit ñi ñëw ñu ne ah kii waaye yow moom jëlu yëm ndax dañ lay fay ndax xeebaloo kenn bu màggal jotee gis nga ni koy wëree bu gàmmu fu ne dem fa dox ko ci biir mbokk kon nii rek la war a kon ñu ngi lay ñaanal wér googu yàlla boole nu ko waaw ndax dafay am ñu ñaan ñoo xam ne dañuy jàpp ni dañoo sore te yoo xam ne danañ waxtaan ndax wax lu bare bare waaw xam nga waaye xam naa la xamante ngeen xamante ngeen ñaanal bu baax bég nañ ci sëriñ bi daaw ni ma ko waxoon ñu lay sant ah, ndax ku baax li gën a néew mooy dañ ni nax ju mooy yaama yi gën a gën a gën a sëriñ baax a rek mbokk mu dëkk xarit bu dëkk àndal muy ku li xale yi waaw loolu lépp lu néew rek loolu la gën a néew surtout jamono mooy xarit bu ak mbokk bu dëkk luy néew rek luy néew looloo gën a néew. amul kon nag wax bu ne bu ñëwee rek ba nëgëj ko tàmbali ba nëgëj. macha allah ñu ngi koy barkal moom amul amul ñu du boppam lay defal. soo gisee man la bi ngay tudd Mouhamed it wa amaa bi ni'mati rabbika fa hadis yaa ko fekk man lam yaskuru naas la yaskuru Allah sunu borom loolu ko waaye sunu xarit waaye ku ku am reconnaissance ku jamono loolu dafa jafe te nit bu baaxul waaw dama toog ci tabaski bi ma toog ba yàgg sama téléphone sonné am ku ma Serigne Mohamed xam nga loolu te te waxkat bi yam ca teg moo jëf jël jël na jox ma toog naa mu fëgg ma sama kër jël amuloo jox ma ni ma am na loo xam ne da nga ma ko daan defal te loolu ba ma ko defal yittewoo naa ko moo tax lii tey ma di ko fayal moom. kon la jëf jooju la nit ku baax ka ba mu rombee man ma am téeméeri at muy jëmbat tàndarma mu hmm. di ko xool ni ko waaye tàndarma ji ngay jëmbat loo ci jublu te yow doo fekkee njëriñam xam nga ne yow doo fekkee njëriñam ndax téeméeri at nga ak tàndarma ni mu waree yàggee mu ne ko dama koy fayee tàndarma yow daal lekk kon loolu nit na ko bàyyi kon kon jërëjëf <laughs> nuyu bu baax seen naa sëriñ Cheikh Abdou mu soxna muy Touba ak sëñ Fallou ñuy bokk su ma limee dinaa dinaa jiw tax ñëpp suñuy suñuy wëllëre lañ dëgg daal mënut a weesu bi waaw kon nag gën a gën a li may wax rek bis boobu dee man lool rek bara lool rek laa ci gën a yittewoo comme na ma ko tuddee te jamono jëf bi dafa bàyyi waaye comme na ma ko tuddee ci loo xam ne dama ko fee di feeñal suñu baax bind yi lu mu gën a feeñ doyu te ni lu mu gën a feeñ sax moom ak bés bu ñu li nga fi def maanaam am na solo am solo boo xam ne dajale ci bokk yi ak ki mu tëriw at mu ñu war nga gën ren gis naa ñaari bi waaye na gën a bari gën a jaxasoo ndax seen moom la ñëpp a koo jiitoo te ñëpp a war a xam ak liggéeyam bi lay dëgg moom lu ñuy lu ñuy waaw ah, ok macha allah macha allah macha allah dëgg la loolu moom Mbacke yàlla na ci yàlla gën a taxaw ñëpp say xarit lañ. wargal nga def ñii rek. kon yàlla nga def ñii rek ñii njaboot gi xam ne ñoo ko bokk nga def rek doy na sëkk. billaay dëgg la waaw waaw taxaw nga leen. fonk nañ lool. foo jëm def daal bis bi daal maanaam lépp loo ci def ngërëm li nga ci bëgg sa diggal Cheikh Mouhamadou Lamine